es temps yi am na loo xamante ni moom mooy moo ngi secouer la toile mooy lan syndicalistes yi ñu fa mise à pied à l'occurrence seen ki leen mooy mooy la Diop mm-hmm. boroom xel du doy boroom euh, dañ kumpa mm-hmm. dañ ko mise à pied mu toog ay mois liggéeyul ndax lan day xeex àq ak yelleef yi nga xamante ni bii ñoom la travailleur RTS yi yellool mm-hmm. directeur ba ñu xam ngeen ko xam ci Racine Talla mise à pied ko loolu ci lu mu bokk ci droit wu RTS. Mhm. da nga ci lu bokk. ci lu bokk mën na ci. xeex ak ak ak yelleef xeex say ak ak say yelleef ñu mise à la. règlement intérieur RTS la. waaw loolu noonu c'est règlement intérieur mais même bu dee règlement intérieur mhm. parce que. ah wala man de réer yaa ngi may réer du la pare. waaw dafa bàyyi lu ma parce que tamit dafa xoromu. Mhm. xam nga ko xam syndicalisme. bañ ñuy jàngal syndicalisme. ñuy jàngal au début seen boo nekkee syndicalisme nekk ci syndicat bi. xaqatal yu ne wala xoqatal yu ne mhm, dañ la ko def mhm. mu mel ni ngay dem da ngay sóoraale sa bopp ne mën nga dem wala mën nga mën nga dem bañ a des wala mën nga des mhm. syndicalisme moo moo ëmbee noonu c'est-à-dire que lu ne dina la ko def parce que yow yaay xeexal employé yi nga xam ne ñoo amul ñoo fa amul doole doole mais ku ne xam ne ku ne xam na Racine xam nga yàq yàgg naa rëqu ndigg liggéeykat employé yi nekk RTS. Mhm. waxuma laat kuy rëq ndigg employé foofu doo bàyyi syndicat. Mhm. mais dafa demee ni télé boo xamante ne bu ñu naan télé état. Mhm. moo demee noonu en général. day mel ne dañ naan la liggéeyal mais amoo droit casse say say say droit daal c'est-à-dire que yow da ngay gëm di def. maanaam le libéraux quoi. waa kay est-ce que comprendre nga. bokkul ak xam nga ndayam mii boo ko dugg jëloon tubaarkaal la dugal ko RTS. ñetti la ñetti fan la fay am. maa taala daf may renvoyer dama yóbbuwaat kii. Mhm. parce que man yenn yenn ak kii yi du xalaat ma ko def. ci mhm. benn liggéey. Mhm. muy liggéey RT xolo liggéey yëpp yam nag muy liggéey RTSO. liggéeyu mbindaanoo liggéey chantier bi quel que soit liggéey bi ngay liggéey. xamal sa bopp xam sa valeur. est-ce que nga am personalité boo xamante ne bu nangu ñu lay teg yenn yi. surtout nag nga nekk RTS te RTS leen seetlu. rare nga leen di dégg ci ay ay mouvement ay syndicat yooyu parce que ñemewuñu. Mhm. déjà yow da nga invité pour sa invitation wala sa émission booy def rek yow doo nekk à l'aise stress ngay dundee. Mhm. ndax yaa ngi yaa ngi ragal nga wax ci loo xamante ne tey par exemple bu bu subaa ñu ñu mise à pied la wala ñu la bu xëy si. Mhm. te loolu moo war di jeex yaa ngi dégg bu ñu naan réewu démocratie dañ ko war a montrer dañ ko war a wane ba ci télé yi nga xamante ne public la. te d'autant plus que RTS ñun ñëpp ko bokk comme li nga wax. télé public la am nga ci wàll am naa ci wàll keneen am na ci wàll. ñëpp am ci wàll parce que RTS ñun ñëpp ko bokk rajo télévision sénégalaise la tudd. Mm. amul tuddul rajo télévision taala xaw ma rajo télévision xawma nan parce que CTS ñun ñep ñoko bokku bokk ma ci amé droit wax noonu nga ci amé droit wax noonu la ci keneen amé droit d'autant plus que nak ñafay fay liggéey di fa daan seen di ci dundal sen jabot té ñep xam nañ ni Ismaël Diop Ismaïla Diop bu xel day yàgg na RTS plus de vingt ans ngi nii ngi RTS xam lu bari bir RTS mën na la wax mbóot yi nekk biir RTS yëpp donc yon la ñun ñu juk mhm. ñun ñu juk xeexal ko parce que liñ ne bo gisé lu la metti mhm. so mën ta def bam faju waxal bam faju mhm. bu ma tax ba mu faju nga joylu ko sa xol kon ñu liñ mën mooy interpeller ñun ñëpp ñu bokk ci mais dafa cas dafa critique xam nga cas nu mu critiqué RTS mhm. <laughs> la mhm. mais uli xam nga cas bi critique RTS la ba ci mhm. yow uli yow bokk nga ci ñi moom RTS man bokk naa ci ñi moom RTS tojum kaa moom bokk na ci ñi moom RTS parce que RTS ñun ñoo ko moom gis nga milieu même lu mu nekk télé état télé état nit dafa war a libre gis nga tey ji man man dama bëggoon man tey RTS nekk télé bi nga xamante ne nii lépp loo xam ni lu état di def ak lu opposition di def lu keneen keneen di def ak li nit ñi def lépp ñu ko fay wane.